ci daal moo ñaaw yaay. Mambey. <laughs> waaw ci mer ci dëj la <laughs> ah, ci Facebook bi bu ñu ko jox yi exemple. <laughs> Mambey. dafa ne ci tës bi ci Facebook bi. Mhm. xamante fa ab xale bu tudd Didi Manivar. Mhm. dégg naa sax seen kër ñu ngi def ko coalition pour ñëw ak si ma fii kër ñoom Didi. waaye man mën naa encaissé ñu ngi leen di xaar samay góor a ngi nii xeex lem. man yegg si man yegg si. bi ñu bi mu xamanteeg Didi. déglu leen de. Mm-hmm. Mame Mbaye xamante xool tus bu grand la. Mm-hmm. <laughs> te waxuma ak yow Mame Mbaye la. Mame Mbaye dama lay rek pour wax di neex mais du yow Mame Mbaye. <laughs> Ah, <laughs> nee na bi mu xamanteeg di mat na ñaari at. Mm-hmm. ci Facebook bi. ci am na dëkk bu mu dëkk dama ko dagg. fañ naan fekkante dama ko dagg. ah kon jot am ndax ah jamono neexul nag. ndax xel xel. xel day mbalax. te bu ñu naan fekkante am na ko kuy se kuy kuy màmbaye kuy didi. nee na ba benn jour. didi daal di ñëw ne màmba yi dama la bëgg a seet si Dakar. didi mel ci Facebook bi leen xamee échange ay numéro ah, didi nag jàpp na yow didi jël otoom ñëw croisement Cambérène woo màmbay ne ko mbay man de maa ngi sa dëkk ndakaaru jël job sax ah, mbay am na gan mbay nag dem jëli teeru ganam croisement Cambérène jagat jagatee di di <laughs> jagat jagatee jagat jagatee di di yóbbu këram tex ah. yaa ngi dégg bu baax à domicile ban demee yendu ba neex di ne tàntam joojo si ne daf may àkk si joojo na ñëw hmm. yow nee gan nga neex. ah, ah <laughs> Didi ne day fanaan ñaari fan. Oh, gan ñetti fan. gan ganale. gan ganale. gan ci ganale. waaye léegi. léegi. Didi fanaan ñaari fan. mu jeex mu tàggoo yabu ñibbi dëkkam. dem nag woo maam jox nañ ko yóbbal ne ko Mbay nag góoroo góor yaa man ndeke mbay rew mi dañuy foo aywa takkal nak iya, takkal naka drapo bi ndeke yo drapo bi mbay ah gadu na drapo bi ndeke yo bay drapo bi ya ndeke mbay ya len man do sen morom ñee duñ mom nga yow ya, yow ya, ay eh sampule ne ko mbay yaa leen mën jox eh, naka ka drapo tuti tabaski ñew eh. di di tabaski xey suba yabuwaat eh. bidil ñëw bidili ñewat kër mbay neexul ba ne way mbay man na complètement ne ko damaa gën a siwaat. doxalal coow laa nga fii nag. Ah. ah. tuuti rek téléphone di di sonné. Ah, ah. am ku ko woo góor. ne ko yow sa ñetti doom yi ngi fi bàyyi. ba pare dem eh, eh, pare nag mbay xel mi commencé jaxasoo. Oh, ne ko waaye yow di li may dégg lan la. yow di mbaa da nga am borom kër di ne ko damaa am boroom kër. ah baa ngi doo ko commencé nag. déedéet. mbay du def loolu. mbay moom ci lu mu nekk da koy mbay nag commencé jaxasoo di miir. moo yey ne man kon li may toog nii yëpp jabaru jàmbur laa nekkal. yëkkati drapeau bi yëpp jabaru jàmbur ko yabal di di ne ko da ngay dem di di ne ko du ma dem dama la bëgg. Eh, ne ko nag góoroo góor yaa man di dee koy wax de ne ko góoroo góor mbay ndek yaa man. sàcc neex rek. mbay nag ne ko dootul maag yow. ah déedéet yow yow daal bul bul bul fiir. mambay ne ko mambay ne ko maag jikko maag jabaru jàmbur jeex na loolu moom sama diir daf ma koy tere si ful la waaye mbay nee na moom fu mu toog xelam di dee ci ne oh. Mohamed nee na ko ba fii nga toog nii mu ne ko ba fii ma toog nii oh. Mohamed Didi moom lu ma fu mu ko yóbbu mbay nee na fu mu tëdd bu yeewoo maa day taali sax ndax xalaat didi sax day jël mu ñëw ndakaaru ne mbay kar fekk ma fii mbay dem sax wala mbay kar fekk ma fee mbay dem ma mbay mënta bàyyi didi te moom nee dafa bëgg bàyyi didi ah, sax wala première fois nag tës ñuy ut sëriñ bu mën dëddale ali waxal de ali xombal waxal yaakaar dafa foor mbay ko dëddale didi la bëgg <laughs> ki nee na lu na waxal yow la ah. doon waa ñaar ku nekk lu mu jox sa ah, ah. morom. ma ne ñi mën dëddale ñëw leen fi ci tës bi. Ah, ñu rek ngeen di xamni ne dëddale am na njariñ. nenañ nenañ nee bu seq yu bëree. kii am saxu ki am saxu kii fa saxoo lo lo xale daal walé du ñu nang ku nekk du nang sa drapeau morom rek ñu sànni. du yombé non nak amar Souley sa wala ki ki baye mané mbay Mbaye dëddale lay wër. te ñun tamit dañ koy wërle. dañ koy wërale de. waaw waaw waaw waaw dañ koy wërale bi première ak deuxième partie la. bay de fi mu toll nii na ko leer ne téeméer yaa ngi koy xaar bi ah waaw parce que mbay amat mbay nag amatul soxna. mbay dañ ko doon non mbay ah, amatul soxna ne dafa divorcé ba ñaar doom waaye nee na xale la. nee mom moom la bëggul dugg ci yii. femme bi ma gën ko 9 ans. fa deug nak digal ko sax. waaw <laughs> tamit nag moom kon ndaw ci tamit moko ko magee ñaata nga ne. 8 ans 8 ans 8 mais ñom ñaar. Eh, Facebook Facebook mo def yooyu. xoolal yaayu mam bay sax wona ndaw ci niko bayal sama doom. billahi mu bañ. ndaw ci ne grawul dina baye yaay ji ko bu mu pare woo maam mbay ne ko damay fo rek duma la wax. te eh. te yaayu mam bay gi mën a <laughs> mbëgg moom xamante na ak bu baax. mu présenté ma waaj waaji waxtaan ak moom kër kër ba affaire yi dama delluwaat laaj waaji ba ma xamee ne carrément am na jëkkër mu ne ma si am na jëkkër waaw problème bi de man dama amoon benn femme boo xam ne dama xamanteeg moom ci Facebook bi ba ñu xamante nag yàgg na ñuy waxtaan ci message jeune bi mu envoyé ma message envoyé waale ma numéro bi ne ma pour ma def ko signe. bi ngeen xamante ñaata at la def. jàpp euh, instant bi na def deux ans. avant ngeen di avant avant avant ngeen di seq dara boobu def na deux ans. waaw def na deux ans. aha continué waaw. waaw léegi nag après si la ma jox numéro ñu commencé waxtaan si whatsapp bi mu jekki saa ne ma dinaa la cessé boobu nee ma dinaa la cessé nag ma ne ko amul problème mu jógee ñëw croisement Cambérène woo ma ne bi nii ñëw naa Dakar maa ngi croisement Cambérène ma ne ko ah bon mu ne ma waaw ma jugee sunu kër dem ba croisement Cambérène jëli ko avant mu doon avant mu doon ñëw yéen a ngi doon wax ba mu ne daf lay seet si waaw waxoon na ma ne ma dinaa la seet si d' accord mais jàppul woon jour jàppul woon bis. d' accord dafa jékki saa rek woo ma ne ma mi ngi croisement Cambérène léegi ba mu ko jëlee mu ñëw ñu toog waxtaan xam nga comme fu mu jógee dafa sore noonu mu mun saa sànni ma dama fi fanaan ñaari fan ma ne ko ah da fanaan ñaari fan mu ne waaw ah, ma ne comme fu mu jógee dafa sore amul benn problème ñu toog waxtaan xam nga nekk suñu mbirum bopp mu jékki saa si mu ne ma instant bi nii damay ñibbi. defal ndànk de sëriñ waaw moom bi mu jógee ba nga indi ko ba mu ne la day fanaan ñaari fan. Uh-huh. kan la mu nekk bi mu ñëwee. sama nekk. yéen ñaar yéen a bokkoon benn néeg ñoo bokk waaw sama nekk la fanaan. dafa naan ñaari fan. d' accord seen kër nga nekk wala da nga loué woon appartement. non non dama loué fi ma nekk. ok. waaw d' léegi continué ah. ba mu ñëwee. si ëllëg mu ne ma day ñibbi. ma ànd ak moom gunge ko ba croisement Cambérène. ñaari fan la fi def wala benn. ñaari fan la fi def. def ñaari fan yi la waxoon yëpp. waaw ñaari fan yëpp. d' balaa ngay sori seq ngeen dara wala sequ leen dara. waaw seq seq nañ dara. ñaari ñaari fan yëpp. ñaari fan yëpp. continué. waaw ma gunge ko mu dem ñibi après ci la mm-hmm. ma waat ne ma man limay may ci yow suma ko sant ci ci góor ba ma dee jànk ba nii ma toll ma ne ko ah bon mu ni ma waaw ma ne ko yow moom yàlla moo ñu boole kon demoon naa bu bëggoon ko def sax sama soxna ndax amoon naa soxna divorcé ak moom am ak moom ñaari doom doom yi nag sama kër sama yaay moo leen yor waaw ma damay dund en famille maag sama yaay ak sama ñaari doom léegi ba mu demee wax ma loolu jéeg saa ne ma dinaa jàppaat jour ñëw fa ma ne waaw ah, mu ne ma waaw mu ne ma léegi daan demee bu ñu tabaski ba ci ëllëg si dinaa fa ñëw ma ne ko amul benn problème ñu tabaski ba si ëllëg si mu ñëw fi bu mu fi ñëwee nag man dama jàppoon ni sax comme dañ tabaski ba si ëllëg si kii amul borom kër naka te dafa am borom kër di ma ko nëbb d' accord yow diiraan li ngeen nekk yëpp di wax nga ne mat na ñaari at. mat na ñaari at. te mosula wax ne dafa am jëkkër. ma ko wax. wax na dafa am ay doom. waaw ne woon na ma dafa sëy ba tas. daf la waxoon dafa sëy ba si ñaari doom. loolu la waxoon sëy ba tas la la waaw loolu la ma déclaré woon. d' accord léegi nag bi nga xamee tabaski nañ ba sa mu ñëw sa kër nan nga def ba découvrir ne dafa am jëkkër. sa parce que dañ nekk jékki saa téléphone am sonné xam nga néeg bi boo ko tëjee tëj frontière bi téléphone bi day am ampleur mu jékki sa ma saa dégg ku naan ko yaa ngi fi bàyyi say doom dem. mu ni ko sama kër bàjjan laa dem xaw ma sama kër tànt Dakaaru mais dama fay fanaan ñaari fan dinaa ñibbisi ma jéeg saa ne ko yow kan moo lay woo nii ba nga am jëkkër du kon na nëbb rek mu tiit ne ma waadama dama am jëkkër rek ma ne ko la programme toujours nek ak man mu ne ma waw xam nga commencé ma menace nak nan mo dom duma la ba na yow ya fi may fi may satisfaire man sama jëkkër duma ko satisfaire ñettel la ma ne ko ah ne ma ñettel la te sama jëkkër ni mu dund ak yow sama jëkkër mu dund ak ya man ma tit ne ko man wax deug yalla man suma xamone nit da nga yor jëkkër dañu tollu fi man ak yow mu ma ah da nga bëgg kon genn ci menace ma dal da nga bëgg genn ci sama digënté ak yow ya yow du ma la ba man négocier ak moom comme sama kër laa nekk su wax ji bëree nit ñi buñ ma fa fekkee dañ naan man lay jox toor man négocier ak moom négocier ak moom négocier ak moom ba mu ñibbi ma jël sama numéro boobu filtré ko maanaam filtré ko moom si whatsapp mu jëlaat beneen numéro woo ma di ma wax naan ma xam yow danga may bañ a wuyoo nii kërëb kërëb mais li nga xam man nga ko sekkal mais gis nga boobu ba tey sama xel mi yëpp ci moom lay nekk ba nii may wax ak yow nii sax billaay wallaay talaay sama xel bi yëpp ci moom lay nekk. gannaaw da ngaa bëgg ndaw si. non waaw au début. avant muy avant muy wax waxu. jëkkër boobu man bëggoon naa ko. waaw non c'est parce que boobu waxuma avant après après problème bi laa wax. maanaam après ba problème bi jàllee. waaw ni nga ko bë ni nga ko bëggee woon li may laaj mooy ni ko bëggee woon noonu ko bëggee ba léegi wala déet. Eh, non actuellement instant bi da ngay toog sa xel mi nekk si moom. mais dama dama ba ma dem faju ji. ñu wax ma ko ne ma lii laa dal ni def def la. lan moo la daloon ba nga dem bi di nekk ci moom may gént. boo fi ma tëdd yëpp day tooy di gént di di di di di sëy ak moom. di nekk waaw di sëy moom. Hmm. te bu ñëwee Ndakaaru fu ma woo dama koy wuyu. kon malgré xam nga ne am na jëkkër. teewul yéen a ngi doon seqaat ay rapport mais mu mel na man bu may dem ci moom day mel na sama xel bi dañ koy naawal. ginnaaw bi nga xamee ne dafa am jëkkër. yow hmm. ñaata yoon nga seqaat ak moom. ñaari yoon. seqaat ngeen ñaari yoon parce que dafay ñëw dakaar mu oo la. waaw te saa yi ma woowee fu ma woo dama koy wuyu. léegi yow moom bu mosaan ñëw sa kër lay nekk mais léegi bu ñëwee ginnaaw bi problème bi amee bu ñëwee da lay oo yow yaa koy fekk si. waaw moom maanaam man maay jël sama tànk du ma xam sax lu may yóbbu. fan la fan nga koy fekk moom benn bi ba mu njëkkee ñëw fii paase. waaw baax na foofu waaw baax beneen bi. beneen bi ba mu ñëwee Rosement Cambérène bi la ñëw ma ànd ak moom mu yóbbu ma. d'accord. d' accord léegi nag euh, ginnaaw loolu nga xamante ne ni maanaam dafa am borom kër di la ko nëbb yow bi nga ko bi nga découvrir dafa am am na borom la jiiñ dafa dafa la jiiñ da nga da nga ko da nga ko da nga ko dafa la jiiñ ëmb noonoo non la ëmb déedéet sa problème mooy li sa xel mi di nekk ci moom waaw li sama xel mi di nekk ci moom saa su ne euh, toog sax waxtaan naa seeg sama yaay. loo ko wax ne ko carrément dafa am benn femme expliqué comme ni mu la ko. expliqué nii li nga ci dara loolu nga wax sa noonu laa ko waxee. Eh, moom ci moom ci boppam dafa jël téléphone bi woo ko téléphone moom. ba ko woowee téléphone mu waxtaan ak moom ne ko yow jigéen nga waroo sax am jëkkër tamit di nekk ak xale boo xam ne nii xam nga. waxtaan ak moom antul jigéen ba moom mu awee ne moom kay regretté na lu koy def loolu noonu sax xamu ko nii kër gam nakate boobu da doon def semblant pour maire bi bañ a xam deme maire bi dafa coupé mu woowaat ma waxaat ma même chose ne ma yow fu mu ne nii da bëgg génn sama diggante ak yow mais loolu mënoo ko ma ne ko waaw ah mu ni ma déedéet yow maa ngi yow yow du ma la baax ndax yow di nga may satisfaire ba ma dee xale ba ni ma toll nit musuma ko satisfaire. yow femme bi moo la mag. moo ma mag wat ma lu mat huit huit ans la la ma ñaata nga am yow. man trente quatre ans laa am. te moom magee na la huit ans. billaay wallaay. te te teewul ba léegi nii yaa ngi ko bëgg sa xel mi ci moom. ba léegi nii. ba léegi. sa xel mi day nekk ci moom. billaay wallaay. da nga dem ci sëriñ pour ñu pour ñu dëgëral leen. waaw waaw dem naa fu ne mais fu ma dem dañ naan ma carrément kii def def bi mu la def nii wax tëgg yàlla non ñoom amuñu si pexe te ñàkk naa si xaalis bu bëree dem naa fu sore nag fu sore faju ji. instant bi ne dama jaaxle trop. wër na ñi nga dem faj yu ñëpp dañ ne mënuñu faj. non dañ may dañ may jox yenn garab yoo xam ne bu ma jëlee même chose lay doon sama xel bi saa ne day nekk ci moom. non dama ne. sëriñ ñi dem. waaw dem nga fu sori. pour pour faju. garab yi lay jox kon jariñu la dara. non jariñu ma dara dañ may jox garab di ma jox ay sang ñenn ñi jox nañ ma ay galaaj yu ma takk mais même chose saa su sama xel bi day nekk ci moom naa trop nag. maanaam dama doon liggéey Colobane laa doon liggéey di jënd ay portable di jaayaat mais tout en sama xaalis boobu yëpp dama ko jël faju jeeku mais même chose toog naa fi solidaire tamit sama yaay teggi na tam jëndal ma Jakarta ma doon euh, cag-cag mhm. billaahi mais après oblige damay toog affaire bi gën ma sonal maire ñu boole maag benn sëriñ bu nekk benn dëkk bu nekk Casamance ma dem fa ba mu demee aussi tamit Lima ma ada dafa bëri ba dama mujj jaay sama cak-cak pour faju billaahi te ba léegi nii may wax ak sama xel bi day nekk ci trop trop billaahi wallaahi d'accord euh, accord d' waji grand waa ji kañ la euh, ndaw si du moins kañ la kañ kañ ngeen gëj a wax yéen ñaar. instant bii waxul man le waaw man instant bi nii dama jàpp ne waaw mais day def sans plan loolu du dara ci moom day jékki saa rek toog benn instant rek woo ma ne ma nañ daje fii te saa ma ko waxee damay jug dem te su ma demee bo ba mu ñibbi sama xel di doog a nekkaat ci man. yow da ngaa jàpp ne moom daal maanaam dafa takk buum ci baat fu la fu mu la ngay dem. billaay wallaay. te saa yu demee te saa yu ma ko wuyjee ba pare rek sama xel ñëwaat. d'accord bi ngeen mujjee wax yéen ñaar lan ngeen waxante. maanaam non mooy fees bu mu mu mu mu mu non non non non ginnaaw bi bi problème yi amee ba nga xamante ne day toog ba mu yàgg rek mu iri la. diggante boobu ak léegi ma ne bi ngeen mujjee wax yéen ñaar lan ngeen waxante yéen ñaar. ba ñuy mujjee waxtaan maak moom. Mhm. non après boobu ba boobu jàllee woowaatuma ba mu ñibbee woowaatuma. bi mu bi ñëw ngeen def mu woo la nga dem fekk ji ko. waaw. ba léegi de woowaatu la téléphone. non non moom woowaatu moom bu amee soxla rek la may woo. d' accord léegi menaces yi nga xamante ne nii euh, da ne daf la koy def menaces yi lan la ay duma la bàyyeeg loolu kese la. waaw waaw waaw naan ma ay duma la yow xeetu menace yooyu la ma doon menace. waaw naa ma yow moom bàyyante abadan fu mu wax dëgg yàlla li may satisfaire buur musuma ko satisfaire. di ma wax ay mots yoo xam ne nii man xaw ma xaw billaahi damay sax tiit. yan moo la wër moo yi muy utiliser laa bëgg xam ne yan moo la. mooy ça veut dire ma carrément du ma la ba doo ma ba. te sa foo toog sa xel dina nekk ci man. maanaam li ngeen di waxtaan daf la daf la junj que ne daf la liggéey daf la. daf la waaw moom kay moom moom. billaay wallaay moom la ma njëkk a wax. mu ne dama laa liggéey. billaahi ne ma carrément yow sa xel doo toog te du nekk ci man. Mhm. ndax dama dama kaat li nga may satisfaire bu musuma ko satisfaire ba ma dee yooyu xeetu wax yooyu la may wax saa su nekk jaxase sama xel mi. d' accord d' accord grand euh, yow mu nekk nii lan nga bëgg. man instant bi nii jàppale ma dong dong laa bëgg mu ba ma xam nga sama xel dellu ci waat si man na actuellement instant bi nii dama xale laa te dama doon soutien de famille dama war a dimbali sunu sama njaboot dimbali sama yaay. waaw fu mu ne nii daf ma daf ma daf ma ruiné ndax lu ma yoroon yëpp laa jël faju jeeku te dara barke alxuraanu. mais jëkkëram mosula woo téléphone wala benn mbokkam. ci xaw ma jëkkër ji sax xaw ma ko. mais laajte naa bañ ne ma kilifa gu kili maanaam kilifa gu mag la. jëkkër ji ndax waaw. ndax un jour mos na ma woo ne ma pour ma fek ko ba ma loolu ça fait un an mat boobu ba ñuy xamante xam nga deux ans la si un bi la ma wo ne ma boobu maanaam xamalu ma woon ne sax ne ndax am na jëkkër wala amul jëkkër ba ma ñëwee bu fekk ko fa mu dugg mu xaw ma seen kër la ma dugal xaw ma fu ma dugal am fu ma dugal présenté ma ñaari xale xam naa ne ma ñii samay doom lañ waaw léegi ba ma génnee dem la ma benn waay woo boo xam te te te jeexagul. ah, ah déedéet. jeexagul parce que moom hmm. dina wax. na mu demee. Mm-hmm. xam nga dem na kër soxna sax. Mm-hmm. mas na fa dem. ah kay ah, dem ah, dina wax nag ba mu demaatee enquête ba mu fa doon enquête. Mm-hmm. pour xam kan mooy jëkkëru ndaw si. seex ndekete ndaw si jëkkëru kilifa la am. ah. Eh, eh, eh, ya allah. te ndaw si nekk troisième la loolooy deuxième partie bi chimère ana waa trafic. ndaw si la. Hmm? kilifa la ca dëkk wala kilifa la ci ndaw si moom jëlul